أربت رب العالمين مع الأمين هو الأمين وانقضى ذكره الأمين لك الكالي وجسدي أببت رب العالمين مع الأمين sirri walami mi ngi siyaar mbokk yi fi daje yëpp sëriñ Mahmoudan nee na mi ngi siyaare mboolem mbokk yi fi daje yëpp nee na di jiital ci siyaar bi nag sëriñ Maam Baara Mbàkke mii toog di wax li waral sama tànk yi nee na di wax li waral tànkam yii amoon na fi daaw nee na tànkam yii de amoon na fi daaw amaat na fi ren yëlla yi ma ko teg laa bëgg a wax nee na ci yëlla yi mu ko teg la bëgg a wax yàlla dafa def way juróom nee na yàlla dafa dogal way juram. jëlale naa sëñ Baara ak sëñ Abdou ak lañ seq. nee na jëlale na diggante sëñ Abdou ak sëñ Baara ak lañ seq. waaye sëñ Moustapha rek laay indi ak Cheikh Abdou waaye diggante sëriñ Moustapha moom sëñ Abdoul Aziz rek ak Cheikh Abdou Lahad la bëgg a indi. dafa doon seen diggante Cheikh Abdou dafa jàppoon jàppin woo xam ne. nee na seen diggante sëriñ Abdou dafa jàppoon sëriñ Moustapha jàppin woo xam ne. jéggi na dayoo. nee na jàppin wa dégg jéggi na dayoo. ndax lim limi limi li muy doon doon mu doon ci moom. nee na li sëriñ Abdou Lahad di doon doon li mu doon ci sëriñ Moustapha. teewul da koo defoon xarit. teewut nag moom Cheikh Abdou dafa defoon sëriñ Moustapha xarit. ndax daf daan wax ni. ndax daf daan wax ne. Moustapha de lu ma ko téye xeeb. Moustapha mii de lu ma ko téye rek ko. ndax yëg gi yëg gi mu am ci man. ndax yëg gi mu am ci man. ndax bu nekkee France wala fu mu mën a nekk. ndax bu nekkee France wala fu mu mën a ne. booba téléphone amul. booba de téléphone amul. waaye lettre am toujours day ñëw ci moom. waaye lettre sëriñ Moustapha toujours da daan jóge France di ñëw ci Abdou Lahad. ak ay addiyaam. ak ay addiyaam. ak saa buy ñëw. ak saa buy ñëw nag. seet la gën a xay. seet la gën a xay. mu wut ko andi. mu wut ko andil sëñ Abdou Lahad. bu dikkee ne ko maam de lii bi ma ko gisee sama xel ci yow la ne. ne ko lii day maam ba ma ko gisee ca France sama xel mépp ci yow rek la ne. loolu mooy sabab seen diggante. nee na loolu moo nekk ci seen diggante. ci jaxasoo gu wér a wér ci jaxasoo gu wér a wér googu biir. loolee fa amoon nag. nee na loolee amoon ca diggante yi nag. am ci sama diggante sëriñ bii. am ci diggam ak sëñ Baara mii. te yàlla rek laltaay ko ak sëriñ nee na ca yàlla képp laytaay ko ak sëriñ Touba. ndax li ma waxoon fee léegi rek. ndax li mu waxoon fee léegi rek. moom lay wax ci moom mii te loolu sëñ Abdou Lahad ko waxoon. moom lay wax ci Maam Baara mii te loolu Cheikh Abdou ko waxoon. daf ne woon sëti sëriñ bii de. dafa waxoon ne sëti sëriñ Touba yi de. koo ci xam ne fi may jomba teg sama tànk jomb nga faa teg sa tànk. koo ci xam ne man Abdoul Ahad fii may jomba teg sama tànk yow jomb nga faa teg sa tànk. ma def la ab nawle. nee na kooko lu mu doon doon doom ci man danaa ko def ab nawle. sëriñ bii nag looloo am suñu digg ak moom. sëriñ maam Baara mii nag sëriñ Mahmoudan nee na loolu moo am diggam ak moom. li muy doon doon way juram. li muy doon doon ci moom way juram. ak li ñuy seq ak moom ngir wàllu sëñ Touba gi. ak li ñuy seq ak moom ngir wàllug sëñ ay jikkoom daf noo doy. ay daal daf ñoo doy. ak doxinam. ak doxinam. ba tey jii boo demee ca daaraam ba tey jii boo demee ca daaraam sama doom yi bopp da ko fa fekk. mu doomam moom sëñ Mahmoudan da nga ko fa fekk. ma yëkkati ko jox ko ko. ma yëkkati ko jox ko ko. ngir jikko ma gis ci moom. ngir jikko yi mu gis ci sëñ Maam ma bëgg mu defal ma ko ci. ma bëgg rek jikko yooyu doy na ma mu defal ma ko ci. nit nag boo ko nawul. nit nag boo ko nawul. te des na fonk nit te doo ko naw. te nit nag mënees na koo fonk ba noppi doo ko naw. waaye fonk nit ak naw ko nga boole ko daje nag jafe na. waaye nag fonk nit ba noppi gis ci moom lu tax nga naw ko yaar yooyu boole daje jafe na. loolu moo am suñu digg nee na loolu moo am diggam ak moom mii moo tax ñu fab suñu doom jox ko. loolu moo tax mu fab doomam jox ko. naw aw doxiinam ak jikkoom. naw aw doxiinam ak naw jikkoom. ak bëgg li nekk ci moom mu def ko ca. ak bëgg li nekk ci sëñ maam mii mu defal ko ko ci doomam jooje looloo tax ma yëkkati nee na loolu moo tax mu fab doomam jox ko. kon il faut ma leeral sama digg ak moom. kon nee na faaw mu leeral diggam ak moom. yéen ñi fi daje di taalibe yëpp ngeen xam ne. yéen ñi fi daje te di ay taalibe yëpp ngeen xam ne. jëmm ngi nii joo xam ne. jëmm ngi nii joo xam ne. kuy wut sëñ Touba. kuy wut sëñ Touba. te muy dëgg ci yow. te muy dëgg ci yow. ab ànd la. nee na moom mii ab ànd la ca. te ku bëgg a dem nag. te ku bëgg a dem nag. da ngay seet ka ne ca yoon wa. da ngay seet nag ka ne ca yoon wa. nga topp ci ginnaaw nga topp ci ginnaawam. faw nga àgg ca dëkk ba. faw rek nga àgg ca dëkk ba. liñ koy liñ koy ñaanal noonu. nee na nag ñoom liñ koy ñaanal. yàlla lafal ko cat. yàlla lafal ko cat. ci barkeb Serigne Touba. ci barkeb Serigne Touba. ba yéeney maamam. ba yéeney maamam. Cheikh Al Khadim. Cheikh Al Khadim. li mu yéene lépp. li mu yéene lépp. yàlla feeñal ko ci jëmm ji. yàlla feeñal ko ci jëmmi sëñ Maam Baara ji. ngir doxin wii muy dox. ngir doxin wii muy dox. su ko defee nag. su ko defee nag. taalibe yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam yëpp. taalibe yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam yëpp. ñu gën a fabu nag. ñu gën a fabu nag. gën a yeesal pas-pas yi. gën a yeesal pas yi. te mu te mu dëggu. te mu dëggu nag. topp ci ginnaawam moom mii. te topp ci ginnaawam moom mii. te xam ne. te xam ne. lu nit jëf ci moom. lu nit jëf ci Maam mii rek. ak noo ko jëfe rek. ak noo ko jëfee. jëf juy àgg ci Serigne Touba lay doon. jëf juy àgg ci Serigne Touba lay doon. te defe naa ñun ñëpp loolu rek la ñuy sàkku. te ñun nag defe naa ñun ñëpp loolu rek la ñuy sàkku. te lii may wax nag. te lii muy wax moom sëñ Mahmoudane. ñaari malaayika yi ma tiim. nee na ñaari malaayika yi ko yàlla booleel ñu tiim ko. xam nañ ne waxuma ko sama bakkan. xam nañ ne kat li may wax teguma ko sama bakkan. ci ay kilifaam laa jógee nii. ci ay kilifaam laa jógee. mujj ko mujj ko. waaye defe naa li ma seede fii ngeen dégg ko yéen. waaye defe naa yéen ñi ma àndaloon li ma seede fii ngeen dégg ko. kenn mënu ma ko def loolu ndax du ma wax lu ma xamut. ci benn jataay buñ ma ko mën a def loo amut ndax duma ma wax lu ma xamut. loolu nag xam naa xam naa ko ci moom mii. loolu li tax ma wax ko dama koo xam ci moom mii. kon nag yéen dongo yëpp kon nag ñun mba mbooleem dongo yi. ma yem ci seen jataay bii tey. sëriñ bi nee na mu yem ci jataay bii ñu jataayu tey. mi ngi leen di ñaanal ci barkeb sëriñ Touba. nee na mi ngi ñuy ñaanal ci barkeb sëriñ Touba. mi moom. mi nga xam ne amuñu nag lu dul moom. di ko jottiloo ci barkeb sëñ Baara mi moom bis bi. di ko jottiliwoo nag ci barkeb sëñ Baara mi moom bis bi. képp ku teew fii ci kër gi ci gannaaw sëñ Maam Baara mi. képp ku teew ci kër gi ci ginnaaw sëñ Maam Baara mii yàlla faj aajo yi ci zaahir ak ci baatin ku ci am ràggit ku ci am ràggit yàlla tàggale la ak moom yàlla tàggale la ak moom te jëf ji ngeen jëf nag ci barab bii tey te jëf ji ngeen jëf ci barab bii tey nag mu bokk ci jëf yi ñu gën a nangu te yéegal ko ca jëf ya gën a kawe te yéega nag ko ca jëf ya gën a kawe ci kanam sëñ Tuubaa ca kanam sëñ Tuubaa sant rek lañ def nee na sant rek lañ def suñ xol sedd na guyu mbokk yi di leen siyaar di siyaar suñu nga xam ne moo fi teew lii de sëriñ tuubaa la jëmm jii de Serigne Touba la ndax bi muy agsi damaa wax ne lu waay amut ci yow la waxewu moo ko tamit sama bakkan ñii nii dañoo doon ay mbokk taalibe ñëw fi mooy ñii di ay Baay Faal ñoo fi indi xéewal yi maanaam joxe ko fi ngir jëmmi Sëñ Tuubaa biñ ñëwee tamit euh, màggal gu jot dañ ko fii def ñoom tamit doonuñ ay nit ñoo xamante ni bii ay ay nit ñoo xam dañuy liggéey seen garage mécanicien lañ yor Dakar di fa liggéey di daan seen doole kenn ku nekk tamit da nga am métier nekkuñ ci nekkuñ ci seen boppi noonu rek maanaam bañ a xëy dañuy xëy am seen teraanga bu amee seen teraanga indil ko Serigne Touba. màggal Touba gu jot dañuy dajaloo tàmbalee dakaar ba Touba. oto buñ dajeel maanaam bu yàqoo ñu defar ko buñ dëppaatee di ñibbi sama kër Touba la ñuy déparé suuru màggal gi ñibbi waat Dakar ñu ànd ak soxna si nga xam ne sëtub Seex Ibrahima Fall la ak sëñ Mamoun mii nga xam ne dañ doon wax añ bii ñu indi woon ko fi saa su nekk buñ ñëwee liggéey ñu am dañu ko dajale indi ko ci màggalu Mbàkke Kajoor ngir jëmmi sëñ Touba waaye defuñ ko fii rek ñu ngi koy def Porokhane ak bépp barab boo xam ne ni am nañ fa mën nañ ko faa defee biñ ko defee di ko di di ko jébbale yàlla ci la dogalee nga agsi te maanaam moom mii li mu wax ci diggante Serigne Abdoul Ahad Mbacké ak Serigne Moustapha Serigne Moustapha Abdoul Aziz buñ naan dafa dem Marseille di fa di fa jiite ci ndigal Serigne Abdoul Ahad Mbacké la woon Serigne Abdoul Ahad Mbacké moo ko bindal ab leetar wan ne kon fépp foo xamante ni bi àgg nga fa sama ndigal nga fa àggee ba moo taxoon mu yaatu lool ci bitim réew kaamil boobu nga xamante ni bi moom la ñuy wax moom la bindoon ca Marseille ca weeru koor ga sëriñ Abdou Lahad Mbacke la ko jébbaloon jotaay bii nga xam ne ni ñëw na fi ñii nii seen añ bi liñ doon indi tey jébbalaat naa la ko addee sëriñ Touba lii man naa ko ci doole kon sëriñ Touba nangul na leen ko kii moom la sëriñ Touba moom la sëriñ Touba maanaam doonut loo xam ne ni Mame Bara sëriñ Moustapha sëñ Baara sëñ Touba sëñ Abdoulaye sëñ Touba te kii rakk la ci xalif général de Mouride moo fii sëriñ Touba tey maanaam kenn ku ci nekk daal bu dee dëgg ci yow boo ko jaayantee bu ngeen ko ñaanee sëñ Touba defal leen ko lu ngeen man defal leen ko ngir sëñ Touba likal kali wa jasadi